suukar bekk wala suukar su moo ko tey tànn sa bu la neex la ci l'observateur journal bi xëy na saf-sàpp ak suukar bay li ndax waxi suukar su mu xëyee defarkatu suukar bii di Jean Claude Mimran borom compagnie sucrière sénégalaise moo nekk ci page ak bu l'observateur Mimran nee na fa ci fukkat yi ñu génn investir na ñaari téeméeri milliards ak ñaar fukk nee na ci Sénégal tegu ñu leen ci ambiance bu baax bu leen mën a may ñuy defi investissement mu jox la ab dippa ñu dem ci Walf Quotidien fekkaat ko fa moom Mimran jafe-jafe yi muy jànkonteel ci ndefarum suukar ci réew mi la fay wax nee na def na ñetti at ci ginnaaw xaalisu boppam bu nekk ci kontam ci moom la demoon jëli ngir mën cee fay ay salaire am ak ay fournisseur am mu ne ay at a ngi compagnie sucrière sénégalaise amul ay dividende yu mu mën a séddoo ak ay actionnaire am Mimran ne mënee jël ay milliards bëgg cee développer ay emploi ci réew moo xam ne xamoo lu fay xew ëllëg wax na it ci Walf Quotidien ñaar yi mu soxla ngir réew mi di Sénégal bañ ba tey di Jean Claude Mimran compagnie sucrière sénégalaise mi ngi wàcc ci le quotidien yëral xët mu bi nee na yi muy wër di moo di li góorgóorlu yi ci réew mi di xaar ci kilifa yi jiite réew mi ci jafe-jafe yi sëkkatal askan wi yi ca gën fës bokk na ci ñàkko kaaraange gi ñuy dund ci réew mi am am gu gi am ci réew mi ak njëgu dund gu seer gi dund gi ak ay njëgam yu seer vox populi nee nañu tàmbali naa xajamal xaat koor gi te dara xewagul boole ci gaz bi kenn mënu mënuta seeni gët ci la Sénégal journal bi mi ngi ñuy xibaar ne député ya war a nekk ci assemblée nationale seenub lim dana yokk dinañu jugee ci député dem ba ci député journal bi nañu mbir la mu ñu waxtaane ba juboo ci ca réunion ba ministère intérieur Antoine Félix Diome woote woon journal Les Échos di ko dëggal ba di ñu xamale juróom-ñaari député la ñu fas yokk ci limub député ya ci assemblée nationale assemblée nationale googee di pencum ndawi a yàq débat ya honorable député Abdou Mbacké Dolly wax na fa ne il faut loi bi dañu koy encadrer bala muy may góor jigéen yoon wu ñu mën duggee ci réew mi député ay miru ñi ngi dugg ca débat ba ba wax ca ne góor yàlla dëgg du toog di wax ci waxi góor jigéen député beneen bu ca wax di maître Djibril War li mu ca wax mënuma caa jaaraat waaye bu ngeen xoolee xët mu njëkk Les Échos gis ko fa ñu wax ci leneen mu di élection législative yi ñuy séntu ci réew ak bokkam ci élection législative yi source waa nee nañu dana ca bokk ki war a jiite seen liste bi di Ousmane Sonko ci xët mu njëkku la mandat moom ak xale bu jigéen bii di Adji yéenekaay bi bind ne seen coowal massage la woon ci Sweet Beauté moo yëngal république bi jamono ji audio Mamadou Mamour Diallo bi ñu ne moo fuité ci mbiri maître Ousmane Seye mi ngi koy càmbar ak a jàngat ci Vox Populi maître Ousmane Seye nee du preuve tangible ca kanamu rëg moo fa tàmbalee dóori misil sol sol te dara xewul rëg-rëg nee na boo boolee fukki sa Cees maa leen mën mën naa koo jàngal bëri